dëgg daal lañ fi wax dëgg daal lañ fi wax moytu leen sirk moytu leen bokkaale moytu leen bidaa yooyu baaxul. dëgg lañ fi wax dëgg daal lañ fi wax dëgg sax lañ fi. Mesin ketambar. من جعل القرآن Assalamualaikum warahmatullah. Andi jëm kafe ga ngi len di siar bu baax baax ci photo borom jowan gi nga xamni mom la laa ci sama poqutaanu tanu indaale indalé eh, li daal di ko waral lepp bi pa moy borom jowan gi ndaxte nak réew mi dañ ko bokku dëkkee dafa amul kenn ku fi am droit kenn di songu kenn ku mëna doon amu fi dëkk bi dafa am yoon am ay ay ay ay loi yoo xam ne moo ñu tëkk ñun ñëpp képp koo xam dañ laa tooñ am nga droit la la wax su fekkate ne lu ñu tere la wala la ñu la def su fekkate ne jàpp nga ne lu ñu tere nga yóbbul ko yoon yoon mooy atte ci yoon atte nga doyloo ko mais dafa amul genn mbooloo gu fiy jóg di songu beneen mbooloo te coow li coow li nag borom njoowaan gi doog moo waral coow li xëy xëy dikk toog sa njoowaan di joowaanu def sa déclaration que ne ñu ngi songi diw ak diw ñaari fan ñett ñii kan lañ yàpp réew mi ko bokku dëkkee ñi nekk di wax ni ni dañuy gor góorgóorlu ci alquran ak sunna duñu ay malien duñu ay burkinabé duñu ay inde duñu ay chinois duñu ay duñu ay saoudien ay sénégalais lañ pire et dire ci nday ak ci bàyyi am droit dëkk ci réew mi am droit dund ci réew mi am droit lañu convaincre ci diiné ñu japp ci loola mais dañuy xey xey dal nit toog ci ak njoowaanam di joowaanu def ben ben déclaration bu indice ben déclaration bu raglu ci réew mi am loi pour jóg songi nit koo xam ne defu la dara ki nit koo xam bañ ko xamee ba léegi fam commencé am njàngam ba fi ñu gisee bi jaawam li ñu xam ci moom mooy jàng ak jàngale ak woote jàmm ak nekk ca nga xëy xëy def sa déclaration kane danga koy song même boo demoon songi ko sax da nga yaakaar day yombe noonu dikk rek dal ci kaw gaa yi dox ci seen kaw dem ñibbi <laughs> wallaahi bis bu ngeen dof dof loon ba songi gaa yi lu lu police ga guy mbind barabu sëriñ Sidiyal Muxtaar Mbakke mbooloo mi ginnaaw xibaar bu ñu jot léegi ñu ne képp koo xam ni ziyaare nga barabu sëriñ Sidiyal Muxtaar Mbakke say aaj dana faju loolu ya tax mbooloo maa ngi bàyyi fenn fu nekk ci bërëb yi fasante ko ñëw fii ci Guy Mbind barabu sëriñ Sidiyal Muxtaar Mbakke ngir ziyaar ko tey jii ci talaata ji tey jii la en direct ci talaata ji waaw mbooloo maa ngi bàyyi ko fenn fu ne nag ñëw fii ci barab bi ngir ziyaar ko waaw mu dee xibaar boo xam ne jot nañ ko daan ne képp koo xam ne ziyaare nga barabu sëriñ Sidi Muxtaar tey ci talaata ji incha allah rabbi aaja boo amoon dana saafarawu loolee tax taalib bi ñu ko déggee lu ñu jàppoon bàyyi ko ñëw fii ci barabu sëriñ Sidi Muxtaar ngir ziyaar ko waaw di ji fasaale ñëpp nag képp koo xam ne amoon nga yéene ak si bi ak si woo rek jàppal ne fasaal na la waaw fasal Cheikh Rafal ka ko njëkk ak moo tax julli boolewu ca jullee koor ak natt asaka parce xam na ni islaam loolu ànd ci dafa tax sëñ Bamba gedd ko waaw léegi yàlla suñ koy seet ci waxante dëgg rek suñuy seet rek sëriñ tubaab ban yónnante ko man diggante moog yàlla waxuma la xut bu samaan yi de dama leen jéggi yónnante yi la dalee ci aadama ba ci Muhammad kan moo ko man ci diggante moog boroomam xamut moo ci man Muhammad mi nit ñi yaakaar laa wax sëñ Bamba ko man ci yàlla billaahi wallaahi xam naa doo ko génne waaye dinaa ko wax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan bi kulli janna min daarati min nan yaasal min na ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant muy kàddu yoo xam daa ko ci soxna Bali taxa muy kàddu yu sel ak kàddu cant ak ngërëm jëme ko ci yéen ñi ngeen xam ni yéen a ànd ñëw ak Wally Seck mi soxna saa ngi lay sant mi ngi lay gërëm mu ne ndax kat yow sa sa wéyjur jigéen xaritam la nee na kon yow doomam nga tey jii nag nga ñëwoon siyaare si sëriñ Muntaxa ci màggal gi indi say àddiya jébbal ko ko soxna si nee na moom mbégum sëñ bi rek mooy mbégam benn bët la am sëñ Muntaxa la ko xool benn leen rek lay déglu muy ngërëmal sëñ Muntaxa Basiir kon boo jëlee sa àddiya ànd ak ñii ngay àndal ñoo jébbal ko sëriñ bi ñaana moom mi ngi ci biir loolu sëriñ Tuubaa nag moo ne woon waxtu yi xawaa ijal la si na daamoo fii xidmati waxab lahu maa raamoo ñi nga xam dañ may liggéeyal fajal seen aajo te lépp luy seen bëgg-bëgg ngeen defal leen kon soxna saa ngi lay sant di la gërëm di di di rafetlu bu baax dikkin gi ndax murit moom amuñu lu ëpp màggal ndax sëriñ Tuubaa moo ne woon bis bi dama ciy sant sama borom dem ba sama jëmm dong doyutu doyuma ci ma woote ne ñëw leen sant le ma yàlla kon nun taalibe yi bi rek la na am bu jotee lu jàpp dañ ko war a bàyyi ñëw sant le sëñ Tuubaa boromam keroog sax dégg naa ku ne weeru bu teroo dañuy sant sëñ Tuubaa ba ca bis ba ñu ànd ak ñu fekk si ko lim bëgg sant la ko boromam moo tax sëñ Moussa Ka ne màggug Serigne Touba moo waral màggal gi waaye màggali njool màkkaa waral demam gi li sabab tukki bi nag nee na rek dafa ne sababu xëy béti an na laa araadan anaala min huja wan akuna saafihan li xaw mi wan akuna xaadiman fii daw mi daan ne li tax ma jóg sama ambition objectif bi ma am mooy dem ci réewi daw ma ya doon fa ko tudd xaatim rasul waaye waan akku na saafi xan li xaw mi sëñ Tuubaa damaa bëgg yomal xiyaamee ba yàlla jur bi doo jóor weer ndey ak bàyyi xew yi ñu leen siraat ci kaw jahannama sëñ Tuubaa ne ma mën a taxaw doon avocat bi layal jullit yëpp ba yàlla sa borom ah léegi toog leen yéen a toog leen. kon li ñu def da ngeen àgg si waat. aleykum salaam. na ñëpp dégloo na ñëpp dégloo. na ñëpp dégloo. tubaab bi. ne ko waxoo dëgg. loolu la wax tubaab bi sëñ tubaab. waaw hmm. ne ko fëgg taabal tubaab bi ne ko lii laa wax bu ko waxoon dëgg. dëgg sëñ na ko doo borom daal. doo borom daal moom moo naq. Hmm. da ngay sóob. Hmm. tubaab bi ne ko danga wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko tubaab bi ne ko mën la génne ndar nga xam lépp dëgg la sëñ tubaab dafa yaay bañ. kañ dem yaay bañ foofu la jóge yaay bañ yaay bañ waaw.